salaamaaleykum rahmatullah beneen yoon euh, Pape Thiam la chargé de communication des activités de Médina Baye Niass tey nag euh, maa ngi feggoog euh, Imam Assane bokk ci coordinateur vice coordonnateur des activités de Médina Baye Niass ak système Mbayang di di sama adjoint di nekk ci commission de communication waaw tey ndaje mi lan moo ko ootee sous le haut patronage de son excellence Bassirou Diomaye fay ak son premier ministre Ousmane Sonko. ak l'ensemble du gouvernement tey ñoo waral lii nii pour ñu ñëw ñu ñu def euh, gannaaw lépp ñoom daan nañ ko def ci yeneen gox yi fasat ko ku ci mel ni maanaam euh, màggalu Touba ga jaar nañ fa def lañ fa tey nag ñu am benn vision indi ko fii nii euh, ci Médina Baye Niass pour jagal ko cité religieux bi jaarale ko ci kan jaarale ko ci xalifatu Mouhamad Cheikh may Ibrahima Niass ñu ngi koy sali au passage di sali bépp kilifa diine boo xam ne mi ngi fii nii euh, ci yeewoo ci Médina Baye Niass ba tax na loolu tey ñu ngi koy def ngir euh, teeru suñuy gan teeru suñuy gan pour xam ñu war a def euh, dëkk bii di Médina Baye Niass def ko dëkk boo xam ne dëkk bu set la ba xam ne képp koo xam ne dugg nga fi muy bépp autorité boo xam ne wala bépp gan boo xam ne ñëw nga fi nga xam ne Médina Baye taxaw na ci ci beneen xarxaram bu bees boo xam ne ci ndigalu président de la république la mu jaarale ko ci ci xalifatu Mouhamad Cheikh Mouhamadou euh, euh, Mahi Ibrahima Niass waaw loolu daal laa amoon ci euh, kàddu yi gàtt yoo xam ne war naa ko ci wax te ci kaw loolu maa ngi ñi ngi remercier ñoo xam ne def nañ ci parce que ndigal loo gis rek am na loo xam ne ñoo xam ne jàpp nañ ci ñi ngi remercier bu baax a baax a baax honorable député Rokhaya Ndiaye ñi ngi remercier monsieur Ndéna Mbodj directeur Kuddu ñi ngi ñi ngi remercier tamit euh, le futur maire de la ville de Kaolack euh, monsieur Lamine Ndiaye ñi ngi koy remercier bu baax parce que def nañ soutien bu baax a baax a baax a baax jëmale ci activité bi ñi ngi remercier tamit waa Sonazep di remercier waa Croix-Rouge di remercier euh, waa UCG di remercier force de l'ordre yoo xam ne ñëw nañ fii jógee ci ndigalu ministre de l'intérieur ba pour bëgg a taaral bés bi rek pour bëgg Médina Baye ville sainte jëm ca kanam